leen niñ ko defee saa su ne ci onde bi ak euh, suñu ay programme ñu wàcc tey su le terrain ngir euh, waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di askan mu di grand reportage euh, boo xam ni léegi dañu leen koy jagleel bés bu yàlla sàkk tey nag ñu ñëw fi nga xam ne moo di ci marché syndicat nekk ci diwaanu Pikine marché syndicat nag bu ñu ko waxee ñun ñëpp xam nañu ko nekk marché boo xam ne jiitu na suñu juddu loolu lañu loolu la suñu mag yi di wax tax nag ba tey équipe bu leeral wàcc fi ñëw waxtaan si ak jaaykat yi nga xam ñoom ñoo fi nekk ñu njëgu marché bi kañ la woon mais également gën a ñëwaat ci euh, ces problèmes yi nga xam ni am nañu ko euh, ci biir marché bi li ñuy njëkk def nag mooy boo ñëwee si kër euh, bala ngay waxtaan ak kenn kilifa ci kilifa ya ngay njëkkee donc laataa ñu ñëw si ñi nga xam ne ñooy jëndkat ak jaay yi am na ay délégué yoo xam ne nekk nañu fi jiite marché bi dinañu njëkkee ci ñoom ñu mën a ñëwaat ci at bi nga xam ni moom la marché bi taxaw dikkaat également ci ces problèmes yi nga xam ni marché bi am nañu ko donc loolu lépp incha allah ko

21 février 1976 ci la ci la ci la ñëwoon si ci Pikine bi nu ñëwee nag boo nit ñi bareewuloon nii nu nekk fi Moussa borom dogal mbooloo mi ñëw ba baree nii waaw at moomu daal la fi marché bi ñëw moom ba nu fi ñëw man jiitewu ma ko waaye nag dama doon dawal ki ko jiite waaw boobu délégué bi fi ñëwoon ne man dama doon ndawam mu di ma yónni may dox waaye nag booba doon naguma délégué général waaw damaa doon ndawam rek marché bi bépp furwe bu tooy dañ koy jaay maango màdd xaal maangoog màdd xaal ak di tax bari na nag bu muy jóge parce que sous bi Burkina Faso dina am camion yu fay jóge dina am camion yu jóge Côte am camion yu jóge Mali ak Guinée Bissau ak Guinée Conakry ak Gambie yëpp seen bagage dañ koy jaay si fii waaw jafe-jafe bi mooy marché bi yàgg na marché su réseau la mboolem ñi nga xam ne ah su réseau bi la fii la ñu jaay si seen bagage waaw Mauritanie lu bari fii lañ koy jënde ay buy ay gerte kemb ay mango ay yooyu fii lañ koy jëndee si di ko yóbbu waaye booba tey avancement bu ci état def daal gisuñu ko ndax état demoon nañ ba wax nu ne dañuy defar marché syndicat urgence yi nañ def formalité yëpp Macky Sall ma fi newoon waxoon ne dafa bëgg leb na xaalis réew mi koy fay comme ni ñu defaree pont yi defaree ko pont yi defaree ko pont yi defaree ko tali yi defaree ko lépp marché ci réew mi la bokk mooy neen xaalis bi génn na waaye boobaa ak léegi daal déggoo mu ndax ña fi tegoon dénk leen marché rechargé woon nan ba wax ba wax na léegi dañuy commencé liggéey bi ndaw si mu dénkoon liggéey bi ginaaw bi dab nu ci liggéey bi nenu léegi damay tabax jaay nu ne ko nag suñu marché kenn du na ko jaayaat loolu moo taxawal affaire bi fekk xaalis bi génn na ba ñoom nañ ma chèque bi ni ma xaalis génn na waaye ñu ne ma léegi xaalis bi dañ koy tasaare ñeenti marché subventionné leen ci benn milliard te cinq milliards de xaalis bi doon ma leen loolu ma leen loolu mënul ne ñun dañ ñu président daa wax ne dañu koy tabax garaawit tiit joxaat ñi seen place li fi des ah ak maire ñoo xam niñ koy def waaye loolu defuñu ko ñu ngi dem noo ngi toog rek ah ndax marché bi amul sàmb defarwaat ah marché bi amul nettoiement ci biir même fi ne ba fi mu ne courant baa ngi nii leen dem ci biir tàkkut yooyu yëpp état ak maire yi ñoo ko war a def waaye maa ngi ci waaw waaw que nii mu mel jaaduwut te état rek moo ko mën a defar non ko yaakaar nag ci nguur gu bees gii parce que ñoom dañ nu wax ci seen projet mooy liggéey liggéey la ñu gëm te ñu dañuy liggéey mboolem at mi ah ni bis yëpp a toll bisu korite ak tabaski rek lan dut fay juuti waaye bis bu mu doon danañ fay juuti di fay patente di fay lépp waaw ak gisaguñ ci suñu bopp nag. marché bi man mi dox ak yow moo jiitu sama juddu ndax marché bi Colobane la nekkoon jóge fa dem Angalmous jóge Angalmous ñëw fii Pikine en 1976 la ñëw fii te 76 ak léegi mi ngi bëgg a yàgg 76 ba léegi marché bi mi ngi fi muy marché xur bi nag ci sous région bi yëpp euh, bii mooy fi marché muy Guinée Bissau Guinée Conakry Burkina Faso Mali Côte d'Ivoire ñoom ñëpp seen fruit bu ñoree fii lañ koy indi camion yi nga gis ñu taxaw nii gros porteurs yi nga gis ñu taxaw yëpp euh, Mali la ñuy jóge di fi ñëw actuellement bi campagne seen campagne commencé léegi war naa toll ci une semaine gàtt gàtt campagne bi dina durer 3 mois chaque jour dañuy comme noonu lañ ko recevoir yu jóge Côte d'Ivoire noonu lañ ko recevoir Guinée Bissau Guinée Conakry ba ci Gambie yëpp seen fruit bu ñëwee seen sous raison fii muy benn marché bii moo nekk ci sous raison bi mu ciy yanu kenn amul benn marché bu ko fi yanu tabaski ak korité ne ñaari bis yooyu dong la ñu wàccee tabaski xëy 9 heures si suba di wàccee am équipe boo xamante ni ñoom ñooy fanaan aussi di wàccee déggoo euh, marché syndicat bi moo boot lu bëree bëri ndax marché mbuur avant ñuy am syndicat fii lañ doon jëlee di yóbbu Ndar avant ñu am syndicat fii lañ doon jëlee di yóbbu Kaolack avant ñu am syndicat fii lañ doon jëlee di yóbbu Touba avant ñu am syndicat fii lañ jógee di yóbbu bi ngay taxaw yaa ngi gis firigo bi taxaw fi mu toll nii bi taxaw Ndar am na syndicat mais la fa am doyut firigo bi taxaw léegi dafay chargé pour dem Ndar noonu. mën naa la ne la Sénégal li ñuy wax naan crise économique bi nga xamante ni moom la ñu am su dul woon teg bi dina gën a métti parce que saa bu ñu xëyee lu gàtt ci ñiy dikk di jënd si rek dinañu xëy recevoir lu mat ñetti junni nit par jour yoo xam ne ñëpp yor seen paan ñi yor seen i show di jënd di yóbbu di jaayaat ci mbedd yi ñooñu gannaaw yàlla ñoo yor kër yi kon syndicat mu boot kenn xamut ni mu toll waaw ni mu toll jafe-jafe bi am fii mu am fépp gis nga diggante jënd ak jaay Sénégal am nañ problème am fi mu toll nii te problème bi nekkul ci ñun ñi nekk ci marché yi di jaay ñi ngi ko ak ak demi grossiste yi ci lañ ko ame maanaam ñi dem bitim réew di importer ji di indi muy ceeb suukar diwlin tamaate foofu lañ ame problème suñu dikkee au lieu que ñu jox ko grossiste bi grossiste bi jaayat ko détaillkat bi mu gis boppam ñoo koy importer ñoo koy yóbbuwaat ci seen magasin te état amul loolu yow ñoo lay jaay ba jaay la sa bénéfice il est temps pour loolu jeex loolu nag guddi ak bëccëg suba ak ngoog ñi ngi ciy xeex ñi ngi ciy wax ba ñu waxee ñu ne marché neexul marché naqariwut marché nga naqari fa bagage ba di jóge di fi ñëw kon loolu beneen jataay la beneen waxtaan lay laaj pour ñu waxtaan ci ñu gën a leeralante dund gi seer na te président bii fii ñëw na wax ci dund gi ndax duñ ko may dara ñun commerçant yi commerçante yi fa suñu ko yéenee may dara ndax 365 jours yi ñaari bis la ci marché dul fay juuti muy tabaski ak korité chaque jour que jëfee ñu fay suñu taxe municipale te réew l'argent contribuable moo koy doxal te li ñu contribuer kenn contribuer wu ko kon il ñu jublu ci marché yi wàññi dund bi te naa nekk dund bi commerçant yu mag yi muy ñuy wax ñi koy importer ji di ñëw ñoo seeral dund bi mais état seeralu ko ñooñu ñoo seeral dund bi mais ñu nekk ci marché yi seeraluñu ko te loolu xam nañ ci lu leer ndax dañ cee liggéey def ci ay gëstu yu mag a mag bu dee nag ci wàllu syndicat bi ngay wax syndicat ay jafey neen jafe-jafey neen la ndax man mënuma comprendre ñu ne la benn marché moo nekk ci sous raison bi Guinée Bissau Guinée Conakry euh, Côte d'Ivoire Mali ba Burkina Faso ñëpp seen furi bu ñore fi lañ ko indi madd bi nga gis doomu madd bu ñore Sénégal amagul ñu ngi ci cinq jours de campagne ou dix jours de campagne madd bi ngay gis fii yëpp Mali lay jóge ñu ngi xëy di recevoir dix camions cinq camions par te ci kanam tuuti dañuy recevoir ay vingt bu bu jeexee Mali ñëw bu Mali jeexee actuellement ci la suñu madd yi doog di commencé tey tey boo dikkee amuñu chambre de froide boo duggee mango bi fi ay dix camions ñuy ñëw bu ma campagne maa nga commencé dix camions ñëw camion bu ñëw lu gàtt te buñ ko ba ñuy jaay une semaine bi balay jeex lu gàtt gàtt li ñuy am ci dese kenn xamut na mu toll te bu amoon ay chambre de froid loolu du am marché bi dañ ko war a defaraat defar mooy dëgg defaraat marché bi jot na 66 ba nag marché bi sensé xar kanam olof nag nee na ki bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ko wéttali tëjal buntu bi du leen boole président Macky Sall moo ñëw di def pose première pierre jumaa ji di inauguré deuxième tribune Stade lam waxoon nag amoon na yéene ji ndax ñetti fan lañ ci teg Abdoulaye Diouf Sarr booba mooy yor ministre collectivité locale daal di ñëw bi muy ñëw mu ànd ak préfet ànd ak sous ànd ak gouverneur ànd ak commissaire maire de la ville maire commune bi ak directeur exécutif woo ñu délégué général bi ak man ñu génnee nit ñi ñu taxaw temp ko fi ñu ànd def visite de terrain quatre jours lañ ci def topographie ñëw ñu def euh, liggéey technique bi ñu tegaat ci quatre jours mu recevoir ñu man ak délégué général mu Abdoulaye Diouf Sarr ñu waxtaan ba déggoo ci aspect technique bi def plan def maquette def lépp ba tombé d'accord yàlla dogal ñu jëli ko fi président bi ñu demee ba yàgg ñun ñu activité waat affaire bi Omar Gueye ñëwee di def euh, nemmeeku tour bi président digg woon ak askanam ndax def na ko bi mu ñëwee Pikine ñu xamal ko ni chantier bi gën a rëy syndicat la kenn waxaatu ci mu woote ci arène nationale woo maire yeeg def yëpp ñu waxtaan ci ba tombe ci d'accord ñu woowaat ñu ñu waxtaanaat ba tegaat ñu ñëw def pose bi ñu paree nag ba jublu ci aspect technique bi kañ la ñuy tabax kañ lay pare ak ku fi am taabal lan lañ koy jox lan la nan la koy jotaate ku fi am sa cantine nan lañ koy jotaate ndax li état defu fi dara ñun ñoom moom suñu alal tabax ko ba mu mel nii foofu nag yaa Fatou Diagne bi mu dugg see ci liggéey bi muy yaa Fatou Diagne euh, dim ci la jaxase lépp ndax yaa Fatou Diagne président dana woon damay tabax delloo leen la cay des yéen maire commune ba ak yéen commerçant yi ngeen bu ngeen tabaxee ba pare bu fekkee daam cantine nga seet ba ñu ko mérito jot ci waaye na ngeen waxtaan ak acteurs yi acteurs yi mooy ñun ñu moom suñu alal ñu toog waxtaan ak mairie bi ak waa promotion bi yaa Fatou Diagne jiite ak ASAPEX Malick bi jiite ASAPEX nag ca départ ba la ko président waxoon noonu la doon def maire bi noonu mais yaa Fatou bi mu moo taxaw ne li président waxoon mënu ko moom li mu mën mooy tabax marché bi jaayan ñu ko ñun nangu nañu 66 ba nëgën ñu moom suñu marché di fi suturlawu yow boo xëyee dem sa biro moom bu xëyee dem bureau bu weer dee mën a présent ñun weer du dee ñu ne présent te ëpp ko njaboot foofu moom suñu alal ji ñu nangu ñu ñuy jaayat ñu tabax dañu jaayat ñoo bañ ba tëdd ca naajo ñu taxaw bañ ne ko du fi am préfet woote na ci réunion ak moom ak ñun ñu toog déggoowuñu dernière réunion bi sous préfet ngi toog préfet ngi toog maire de la ville ngi toog euh, maire commune ba ngi toog maa ngi toog délégué ngi toog ak awaa asitib ñu tëju ñu waxtaan ba déggoo waaye moo yàq réunion ba ndax dafa dikk nit ki sooy wax ak moom da nga koy nawloo te yaa Fatou Diagne nawloowut ku yàlla bind jàpp na ni ku mu toogal rek moo la gën loolu la jàpp ku mu toogal ngay góor di jigéen moo la buy wax ak yow bu waxtaay wax ji jaxasoo sax li mu lay wax mooy xamal ni man kilifa laa fii ñëpp kilifa lañ responsable amu fi ku ñu responsabilité moo fi am bu responsable doon sax kon président Macky Sall du dem démb dañ moo tax mu doon responsable bi ñu ko jëlee lañ ko responsabilité woon fanaanul sax kenn ku ne nag responsable nga ca kenn ñu taxaw nag ne ko nag ñun toogatuñoo ak yow réunion préfet nag na jóg daal di ne commerçant yi leneen war ñi ngi ci man en tant que représentant l'État li ma war mi ngi ci préfet li ko war mi ngi ci mais yaa Fatou Diagne yow mii toog yaa mënta déggoo commerçant yi te fekk mënoo déggoo commerçant yi liggéey du am looloo yàq liggéey ba état nag génnee na ay milliards ba jox leen ko ba ñu joxoon entrepreneur bi avance nañu lijjanti xaalis boobu dugg ñun nag ba ñu ko defaral suñu marché bi mais na yaa Fatou Diagne tool nii nga ne da koy defar ba pare ñu ne la indil nañ ba xam ñaata ñaata kanti ne espace pàkk yi mu toll kenn lu ne ka ko moom lépp def nañ ko ci document ba def pose première pierre bi ñu ne la tegal ñu maquette ñu jàkkaarloog moom ba bu ëllëgee soo bëggee def lu bokkul ak lii ñu ne la du nii nii la nga ne damay liggéey du ma def maquette loolu fan la am ay tappale la ñu bañ mu jóge fa ànd ak ay nit dem ci sëñ Mountakha xalifa général de Mouride daal koy expliqué le fait que délégué général bi mooy représentant xalifa général bi fi xëy na ñu yaakaar ne suñ ko jaaree foofu dana kii mais xamuñu sëñ Mountakha ku mat la bañ demee sëñ Mountakha wax a wax ba pare sëñ Mountakha dafa woolu délégué bi mu ñëw mu ko liñ may wax lan la demee mu leeralal ko ba pare mu ko ah kon teey leen ndax délégué da ko ne Sandaga ñoom ñoo ko tooñoon ba nga ni tabaxuñ ko nag bañuñu ko ñu tabaxal recensé nañ teg nañ pose première pierre mais nañ ñu defal maquette le fait que defal nangu ñoo ñu defal maquette mooy lañ bëgg ak ñun lañ bëgg du benn kon li am solo mooy nañ wax ak ñun ñu moom suñu alal ay taalibe lañ ay jullit lañ li ñu séq ak sëriñ bi mooy liggéey jaamu yàlla liggéey suñu àdd yi yóbbul ko su ne def leen yëf bu ne bàyyi leen bàyyi waaye marché bi nag ñoo ko moom ku ci bëgg dara ñun ngay waxal ndax fii la suñu àdd ak suñu suñu teraanga di génn ak suñu dépense sëriñ bi ba mu ñu dégloo ba pare daf ne du ma digal kenn mu yàq alalu kenn du ma ne kenn tamit toogal ñu yàq sa alal dem leen ngeen toog waxtaan ndax li ngeen wax xel nangu na ko kon damaa wax ni liggéeyu marché syndicat su amee jafe-jafe ci commerçant yi du ci commerçante yi na ko état bii fi ñëw xam xaalis ba ñu génne woon nag muy presque deux milliards et quelques ne dañ koy dugal ci syndicat ba ñu def pose première pierre ba joxe avance entrepreneur bi nañ la jënti xaalis boobu dugg lii daal laa ci amoon nu may wax waaye syndicat bëgg nañ ñu defar ko te pare nañ defar ko te su leeree suñu bopp rek danañ ànd ak ñoom defar ko incha allah bi ñu xamoon ak bi léegi nag dañoo wute bi c'est vrai rapport bu njëkk bi ñu xamoon euh, ñun ndaw ñi daan nañ si gis suñu bopp suñu papa yi gis suñu bopp suñu mama yi gis suñu bopp bu nekkoon syndicat bu naatoon bu neex waaye léegi nag par rapport nag syndicat bi ñu gis léegi dafa nekk syndicat boo xam ne da ngay ba ngoon maanaam boo jaayee ba ngoon jot doo sa bopp même temps client bi ñëw du gis boppam même temps yow miy jëli doo sa bopp mu booleeg loo xam ne daal dafa nekk lu metti pare tamit des fois euh, liñ si xaw a metti ba metti ñu mooy euh, wàllum ndox mi su nawet ñëwee ñu ñun waa syndicat dañuy gën a sonn dañuy gën di yàqule bagage léegi na par rapport bagage boobu noonu léegi bi ñu ci demee eh, xam ne génn ci nawet bi léegi li nga xam ne moo di ay molo guana yi nga seen yi xam ne nii par rapport dañ ko daan jaay ci événement Korité bi nag dafa amul maanaam soo déggee mën na dafa amul maanaam njëggee dépanné dañ ko daan jëndee moo tax léegi dañuy jaay nii rek ngir bégal yi mais gisuñu ci dara yàlla xam na loolu kon léegi suñu ci jógee ñu ngi jëm ci li nga xam ne moo di campagne màdd te boo xoolee suñu mbokk malien ñu ngi ñuy indil madd boo xam ne par rapport li ñu koy jëndee sax baaxul madd bi ñu andi baaxul ba pare ñu ngi koy jëndee prix bu cher ay 15000 ay 20000 parce que des fois loolu tamit nekk na loo xam ne ni tamit neexul ci sénégalais yi ne fii parce que boo xoolee suñu yaay boo yeeg suñu rakk yeeg yëpp ñu ngi si syndicat bi kenn amu ci job job bi maanaam mu ngi mel ne tey jii nga xëy depuis 6 heures euh, ba 18 heures doo wàccaale sax 2500 lépp ci bagage bi lay defar. ngir bagage bu seer transport bu seer pare na loolu yëpp nag maanaam dañuy wax ne comme état bi fi nekkoon xëy na moom moo tëraloon loolu mais ñi ñaanaat yàlla borom bi mi nga xam ne tamit état bu bees bi fi nekk alaaji Basiru Jumaay xëy na tamit mu gëstuwaat syndicat ndax syndicat daal boo xool pour yëpp ci Dakar lay syndicat lay lay lay dikkee muy mango muy molo muy goana muy xaal muy màdd muy lépp loo xam ne nii rek kuri la ci syndicat lañ ko léegi nag loolu li koy mën a may syndicat bi naat gone yi mën a am liggéey day fekk fruit bi yomb ci ñoom bu ko defee clients yi mën a am ñiy jaay mën a am ñëpp mën a am loolu moo di syndicat bi fii moom bu tawee bu daan taw bu ñëwee fii yenn saa yi pour nga jàll sa problème la dañuy teg ay xeer rek lu nekk la ñuy teg mais pour nga jàll problème la wax dëgg yàlla suñu dimbali woon ci ndox yi baax na suñu ñëwoon tamit wàcc nañu tamit bagage yi lañ gën a arrangé ndax loo xam ne danga fii lañ koy bayee fii lañ ko daan jënde di ci jënd di ci am te léegi tey fu mu toll nii xaal sax boo xam ne bu xonk la pastèque bi da koy peese c'est pas ñuy liggéey suñu biir dëkk ñu ëlbati ko si ko day metti suñu vraiment ñun sonn nañ ñun jigéen ñi jàpp sonn nañ ndax ci affaire liggéey bi mais nag mënuñoo wax lépp waaye dénk nañ ko daal waa nguur gi ñi nga ñoo wax dëgg yàlla ndax nit moom fu muy nekk di fa dem di uti bu sañoon day set mu tax buy dem bu yóbbaale mu yóbbaale lu set këram ndax dem nga yóbbaale lu tilim nga yóbbaale infection pour af say doom loolu day indi problème defaroon nañ ko mais taxul defar bi nekk ni nga xamante ne bi noonu moo gën a kii quoi ndox mi day ball di génn ba fii yëpp parfois day fees tey xaw a ñëw mu xaw a tane ni mais parfois boo bëggee jéggi ci vent bi jéggi jàll ci vent bële faaw da nga wiiri quoi da lu sori da ko mën a dem ci beneen bi parce que day fees ndox te ndox moomu jàpp naa ne daal nekkul lu gën parce que ndox mi dafay am xet dafay xeeñ day day koy day am xet marché moom day am xet moom franchement day am xet waaw marché bi day am xet parce que li gën a waral xet yëpp mooy ndox mi muy génn nii ci kaw tali bi dafay génn daanaka am fi lu mat semaine ndox dafa nekk si nga côté bi boo xoolee sa sa ginnaaw ni dañuy tuur ndox mi day wal ñëw ni dugal yu fees yëpp nekk am ndox non Sonko moom ak Diomaye xaar ñoom dara xalaat taxaw toog di leen xaar rek di leen déglu nag waaw ñu liggéeyal nu parce que nun ñoom ñoonu war a gërëm mais nun waruñu leen a gërëm ñoom ñoonu war a sant mais nun waruñu leen a sant nun askan wi parce que noonu noo leen fi teg nun li ñuy liggéey suñuy mbindaan lañu yàlla na yàlla kattanal leen bon may leen yéene bi nga xam ne am nañ ko ci Sénégal yëpp sa borom yàlla dogalal ci leen may leen kattan ak tal ak fekkee boobu ñëpp ñu fekk ko avec Leral TV njëkkaan moom loo liggéey am xaalis instant yi nag lii ah da ngay dóor ba sonn doo gis dara parce que liggéey ba na mu demee bu njëkk ak léegi par rapport bokkul voilà foo muy jóge sa nettari fi yokk na lépp yokk na yaa ma gën a xam yow li fi ne voilà loo doon wut juróom afi ni ñaar dërëm mu ngi la ciy tër voilà mais nag ñoo ngi doon sant yàlla bu baax a baax soo xëyee samp say tànk am jaam rek am nga jaam leneen loo dox waa nag lu ko suñu borom wërsëg xam ne la suñu borom dogal waaw doolee sant yàlla bu baax a baax. ak gouvernement bu bees bi moom ñu ngi si dugg si bisimilah rahmaani rahiim àggalu salaam di laa rabbi lépp luñ si mébét yéen ko sotum àggale ki nga xam ne moo toog ndam li jig ko ñun ñi nga xam ne itam moom lañ yaakaar yaakaar ja bañ a tas moom itam yéen bi oyof ci moom lool ba leen séentoon ci moom suñu borom àggale ko ci barke Sëñ Fallou sëñ Bassirou may ndam li sedd guy ci koom syndicat la ñu nekkoon tey dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la ñu yëkkati ñoom commerçant yi nga xam ñoom ñoo nekk fii ci marché syndicat euh, fàttali nekk ci Pikine nekk marché boo xam nag 1976 la woon ba léegi donc boobaak léegi nag yàgg na euh, gis nañu également euh, kàddu yi nga xam ne ñi jiite marché bi yëkkati nañ ko parce que ci ñoom la ñu njëkkee mu mel ni li fiy metti nag bëri na parce que syndicat bu njëkk ba ak léegi am na ak wuute bu baax a baax ñoom nag li ñu bëgg moo ñu defaraatal marché bi tey loolu du ñu xaar dara si ñoom loolu la ñuy sàkku jamono ji ci nguur bu bees bi nga xam ne jamono ji taxaw nañ ci liggéey ci coppite am donc rek ñuy am yaakaar ni marché syndicat dinañ gis seen bopp bu baax a baax rawatina jaaykat yu fi nekk ci li nga xam ni mooy rek euh, liggéey bi nga xam ni soobu nañ ci euh, jamono ji donc mu nekk marché boo xam ne également rek wax ne ay fruits la ñuy jaay mango màdd euh, nag ñoom buñ ne fruit banana Euh, li nga xam ni moo di pomme ak banaan ak yëpp bari na ci ay rek légumes fruits yoo xam ne ñoo ngi koy jaay fii euh, ci marché bi mais également ci sous région bi aussi c'est important ñu préciser ko bari na ñu fay jugee ñëw ci marché bi euh, donc di ñëw di wut si li nga xam ni mooy rek légumes wala fruits dem yóbbu ko pour jaayaat ko donc fii aussi ci marché syndicat du waa Pikine rek ñoo fi nekk un peu partout la ñuy jugee pour ñëw daan si seen doole fii ci marché Pikine donc mu nekk li nga xam ne la ñu andi leen tey ci seen son reportage di leen remercier bu baax a baax di leen di jox di daje semaine prochaine incha allah ci beneen tam jaa